amati nañu mbégte di ànd ak yéen ci xibaar yi ñu di leen digtal bés bu yàlla sàkk a yaatu ci coowal escroquerie gay mook fausse ñuy tudd Adji Sarr ak Ousmane Sonko Sidi Ahmed Mbaye ma yóbbu woon Adji Sarr la ñuy toppee tentative de corruption gannaaw vidéo Adji Sarr ak Sonko ga mu wecceekoo fukki million ak benn autorité bu nu sukkandikoo ci libération Abdou Nguer ma ñu ni magu Adji Sarr la moo porté plainte gannaaw bi xaalis bi jaaree ci loxoom mu jox ko Sidi Ahmed Mbaye moom mi la daal koy jox clé USB mu woon ni rek vidéo Sonko ak Adji Sarr moo nekk ca biir ba mu taalee ordinateur am la gis ne amul benn vidéo gu ca ne booba la ñu gëj a jot Sidi Ahmed Mbaye libération di wéyal naan autorité boobe nag du kenn ku dul Doro Gueye yi askan wi lañu l'observateur di xamal ni rek ci tànki tas la nekk ndax bari nañu ca jugee dem taxawal seenub kuréel dippee ko yeewi Sénégal journal bi woyal naan ña nga toll ci juróom benn mu di waa ànd dooleel Sénégal par du changement bu Assane Dia Euh, Front pour la République du Sénégal and Ligue bu Diop Abdou Karim Fall parti africain pour la renaissance et l'émergence Paris-Soukali, Sénégal euh, Serigne Modou Gueye Union patriotique bëgg sa euh, Diop bu yeewu ak Ngouda Fall kan Sénégal rek Kidi di Abdou Karim Fall modi coordonnateur ga ma ngay Ousmane Sonko Khalifa Sall ak seeni ñoñ ni dañuy amal ay trouble ca Yewwi Askan ab sàcc ci la ñuy waxtaanee rek ca télé bu mag boobee di RTS bu nu sukkandikoo ci xibaar yi lu tolloog 161 disque dur yu ñu xayma ci juróom-ñaari million ci sunu koppax la ñu fa sàcc responsable direction générale RTS ganak jébbal na plainte contre X ba su ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février. l'enquête ga ca gendarme yi ubbi woon doon wane ne ñetti nit ñoo yoroon gestion wu jumtukaay Diop mii ñu fësalul turam nag moo di woon responsable principal ga teg si ñoom ñett ku ci ne da nga yoroon caabi magasin ga matériel gu waroon a génn daa waroon am lu di ko firnde waaye journal gi nee na ba ñu càmbaree bordereau ya la ñu gis ni lépp la ñu falsifié dolli ci ay mbind ci ay bic yu bokkul ñaax ña nag nee nañu responsable gi di Diop moo sa yokku mbind yooyee jamono ji ñoom ñett ñëpp nga ca brigade de gendarmerie wu conk ñeel tournée économique gamuy amal région bu Sédhiou njiitu réew mi Macky centre hospitalier régional Amadou Tidiane Babu structure sanitaire Gogunaka nak na ci hôpitaux au niveau yi manam dal yu Macky ni ko njiitu mi Sénégal plan d'investissement ngir système de santé gu ca jamonoy affrontement ya woon foofee ca diwaanu Touba ba ndëgën yi Assane Gueye mi ñu gën xam ci Azoura Fall mi ngi ci kaso bi gannaaw retour de parquet ga mu amoon teg nañu ci ndoddam tuumaay diffusion de fausses nouvelles sur la santé de Macky Sall ni ko avocat am di xamle ak offense gannaaw ba mu yëkkatee kàdduk mbaam teg ko rek ci di njiitu réew mi dolli nañu ci menace de mort sans ordre ni condition ci ndaw sile di Adji Raby Sarr ca conseil des ministres àllarbay démb gi njiitu réew mi Macky Sall fal na ca njital kuréelu consommateur yi ci euh, Sénégal euh, moom Momar Ndao nag titulaire master en droit de la régulation def nañu ko njital commission nationale de régulation des loyers euh, des baux à usage d'habitation mu di structure bu momi rek ministère du commerce de la consommation et des PME di fàttali rek ne Momar ndaw ne woon lu yagul dara conseil technique ca présidence de la République weex ci ginnaaw lañu jotoon ni sëyu sumbuloo Abdoulaye Diop xaas dafa tas mu di xibaar wu siiwoon loolu ku ne rek doon ca yëy yàbbi bu nu sukkandikoo ci sunu ay naataango nag ñoom ñaax daal dina ñuy juboo lépp fi mu ne nii jaax na yoon ba talaata gi weesu sax la sumbulu dellu kër borom këram ni ko xibaar yi xam xamle. juge d'instruction bior yor dossier wu Alexis Diata Hadaline dinay jël ndogalu yëkkatiwaat mbir mi ba parquet wu Ziguinchor gi ubbe information judiciaire ngir leral mbir mi ba dara beesul ci dossier ga magistrat ga yoroon instruction bi dañu ko affecté woon Les Échos mooy xam ne ni ko ko wuttu dana tàmbali audition yi semaine bii di ñëw tasi waa kër victime bi lañu koy dooree ni xibaar yi Alexis diata ma nga ñàkk bakkanam ci ay anam yu kenn mënul xam ba rapport médical gi ab mort par balle la biraloon waa këram nag dañu jàpp ne takk der yee ko faat bu nu sukkandikoo ci ay xibaar yi Les Échos Karim Wade dafa yónnee fii ci Sénégal lu tolloog ñaar fukki woto yu bawoo Doha ni ki ni ko journal bi di xamle loolee nag jox na fi ay laaj yu bari gannaaw ay weer dong yu des ci présidentielle 2024 gi Karim Wade dafa ñàkk ay droits civiques am yu ko waroon a may rek mu bokk ndax la ko yóbbu woon ca kaso ba ba su ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre gi weesu seeni droit waaye ancien ministre d'état gi nag ab révision procès la doon ñaxtu mbokk yi lii la ñu leen tey ci xibaar di leen jaajëfal ci ànd beeg safo bi di leen ko toppal ci lu ci gën a fës ba lëg incha allah